arrêt bi moom amul problème amul tuux yàmba amul amul xeexoo amul xëccoo amul dara waaw fi moom macha allah moom mooy arrêt bon mbay sàmb mais bis bis ni ci tey jii arrêt bàyyi man man Moussa laa. arrêt bàyyi Moussa ah waaw waaw. waaw waaw jaar Moussa arrêt bàyyi Moussa. waaw waaw ah, waaw ah, ah. dinaa ko ngénte. dinaa ko ngénte. waaw waaw dinaa ko. Eh. demul de wala. déedéet amul fi de ah. yooyu amu fi da ngay toog client bee ñëw wax ci kaw war a dem dem kañ des toog amanda xam nga ni sama sama lépp ay dëkk lépp nga gaaw lépp lépp suba ba léegi kenn nit ñi moom xanaa ini? duñ duñ génn di doxi seen soxla koor gi la koor gi la koor gi génn doxi soxla waaw koy kan moo ci war a dem bàyyi ma sama dem non maa war a dem maa war a dem maa war a dem maa war a dem maa war a dem maa war a dem boy boo maa ñëw ci sàmm fekk na boy boy boy dëkku ci picc rek la. benn côté ci yow dëkku ci picc rek teg nañ ko ci yoon. dëkku ci picc rek dëkku ci picc rek. yow maa la fi jiitu sax. nii lay def loolu dama jox ko dama lay def. dama am na ko war a dem. dama bëgg moom laaj ma

Badul fili masa dégg nga. bari ya ya eh, ma ne booy sa yoon newu ci. booy booy sa yoon newu ci. yow yow yow yow da eh soit soit correctement yooyu. waaw yow lii sax fooy teg sa tànk. foo ko foo ko teg baax na. dañu dañu doo ko. per seen arab bi mu ngi tëfin. sa copain la ñuy wax xale bi ñu yëpp. ah booy. salaamaaleykum booy booy yàgg rëbb. Ah. naa def sant suñu borom la. yaa ngi si jàmm baa ngi si jàmm. naka koor gi. alhamdulilah yaa ngi ci kaw. baax a baax ana Baye Moussa. Baye Moussa de léegi la yab de. léegi la dem de. waaw lii sax la jaar. aha di waaw waaw man bayam gitu Baye Moussa jaaxal bayam Ibrahima Baye Baye Moussa ni ma bu naajee nga ñëw ma jox la dépense waaw waaw waaw ah kon kon kon de da koo fàttee ya, batale pourtant ah. de mu ngi fi woon de léegi léegi la yeb de xam da koo fàtte waaw eh? da koo fàtte eh? te naaj na léegi mi di jot arabi arabi la rek doy na waar mu ngi taraawaay kay macha allah ñu ñaanal ko rek moom góorgóorlu ci dara kookin bi yàlla baax na yàlla baax na ma ma ma jox la ba mu rek waaw bu ñëwee waaw bu ñëwee jox la waaw lu muy toll waaw jox ma 3000 ah 3000 waaw waaw ah, mil kay bariwul marché ah, mi métti. waaw bu ñëwee xam nga rek. waaw waaw situation oblige rek. waaw ngay ngay def ndànk di ko muñal rek. waaw Moussa jàmbaar la. waaw yàlla jàmbaar la yàlla jàmbaar la góor moom. wax dëgg yàlla bu bu ñemee tës tës rek. Mhm. waaw waaw la des mooy muñ. baax na kon dawal dawal yeeg. jërëjëf kay yow it ku baax nga. jërëjëf nga ci bu baax. waaw kay waaw bu waaw ma la bi nga fekk. yow de bëgg fi fekk waaye bàyyi wu sax. waaw la de. waaw boo leen nga fi. waaw bil la de. Habib Ramadan. waaw. dëkk waaw na ci borom waaw. Eh aywa xale yi kañ la ñuy mën a dawal. ah moom de léegi nu leen neex la ñuy conduire. man daal damay wéeri corniche bi. waaw maa ngi yeb luur boo xam ni. Oh. maanaam bi may kottu corniche bi. dañ mu ñëw ak da ngay maytu luur yi nag. ah da ngay xam ni bari woo ak suux. Ah, waaw da ngay maytu luur yi. Ah, waaw mais jafe naa nga yëpp yëpp dafa loo ci xamul loo ci xamul gone tey yii. Ah. raxas la ñuy def di raxas di raxas ba am lu ñu utee permis dem fay di dawal. am nañ seen fulla. am nañ ah am nañ seen fulla waaye ni nii mu def nii. ah day toroxal ni. ah moo tax ma naan la deel def ndànk. léegi nag Baye Moussa ah. léegi nag xam naa ne dëkk bi xaw naa. xaw naa tane. ah waaw tane nii <laughs> tuuti ndax. ndeysaan. ah yow moom juróom jàmbaar nga di eh daw nga kat ah, ah ma akfan ah, ya ah akfan ya ma sha Allah yow wah mom wax deug ñen na essence nak de ah ñen na ñenté la Enggak yow bay musa mau ma sha Allah nga essence bi mom moy moy yefi tabarakallah tabarakallah bismillah tabarakallah am bismillah bay musa ah, gore way ka defé lool nga dal koy yobbu kër ga rek gi ah ni goor ga doon wax soxna ci nan ko soxna si romb waaw. naan ko asalaamaaleykum góor gi noo def mu naan ko ah, mii de xàmmee naa ci koñ bi. waaw <laughs> ci bëccëg weeru ni mu ngi lay bëgg a dal. ah déedéet 4000 la jox di. waaw dama laa fàttee wax soxna si dafay ñëw sa ginnaaw. waaw eh, ni yaa ko waxoon mu ñëw ci arab bi nga jox ko dépense. moom jaara waaw waaw moom jaara waaw ma joxal la ko 3000. waaw léegi nag 3000 laa jël léegi mu des 1000 francs. 3000 nga jox jaara. wax 3000. 3000 dama laaj naa ko demandé naa ko lu la Baye jox mu ne ma jox ma 3000. ci ma jox ko 3000. yow Guèye sa kër da nga faa joxe 3000. ah déet Baye Moussa nag sama kër moom xamoo lu. xamoo lu ma fay joxe mën naa faa joxe lu ëpp 3000. ñeenti téeméer ak juróom fukk la doon jox. waaw eh, avancement day bette bàyyi mu. Ah? man wu da nga. avancé gu ngi dellu ginnaaw ba. nga yàlla avancé yow mi nga xam ne yaa ngi nekk si sa. macha allah sa paala nga ma bant ma laal bant man di ko jox ju ju. Mbaye Moussa. sa jabar ñëw na fi nee naa ko loo ko jox muy 3000 joxal naa la ko 3000 bu ma amatul jërëjëf nag bu ma ci xas na yow tamit ba Moussa Wah, loolu amul solo loolu maa jaaroo ko nit ah wax kay waaye nag di di dugg kay da nga ne woon daanaka Wah, nga may dimbali Wah, nga ni ma foo amee Wah, waaw jëlal jëlal benn Wah, genn wàll waaw nga yóbbu sa kër waaw waaye Wah, ne tey benn genn nga aw ngaal nga ma jox waaw déet bàyyi Moussa li dem kër ga nag ah li dem kër ga da nga bëgg ma tudd lool ayow kay yow mi nekk nga de ah waay ah, waay bàyyi Moussa nag yow yow trois mille juróom fukk nga ma téeméer ak juróom fukk la am de gitu gi ma lagi kër. waaw léegi jërëjëf. loolu yëpp kay mën nga de ko cee bañ a wax nag gitu, yow ya, tamit nag. ñaar fukki yi jaay ma ko de tàndaan. fukk fukki yi suukar. fukki yi. fanweeri suukar ah suukar. ah li de yóbbu yëpp tàndar maag suukar bokku. Iya, yow ya, kay comme maa joxe sama dépense de la ma koy fekk jaay ma lool rek. ma def ko de ñaar fukk wala mbuusi ko. waaye laay rek. comme joxoon nga ma ko kay. jëlaat ko rek. bismillah. ah ma ma def ko mbuus yi de daanaka ni comme nguur gi da koo moo tax mu xaw a. laxasal ma ko ci kayit surtout. Ibrahima Sall na nga may toog toog toog jotagut. yàlla baax na d'accord ah, yàlla baax na jërëjëf. jërëjëf kon maa kër ga. waaw waaw ndànk rek dégg nga. jërëjëf waaw wuy ma Baye Moussa. maslaa rek. jigéen ñi moom muñalante rek. yàlla baax na maslaa rek. yàlla baax na maslaa rek xam naa la nag.